وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي jërë ngeen jëf euh, téléspectateur télévision Touba TV no ngi leen di euh, nuyu di leen siyaare ba tey ñu ngi ànd ak yeen ci seen reportage yu màggal gi euh, nga xamni ño ngi fi nak ci ngiraneen ci sumpu gi waye fekk ci jambar jo xamanteni yakarna ni booy na muy soxna Ayda mum Serigne salihu waye soxna Ayda mu keppaar gi loolu nak amna lu muy tegtale dégg ngeen léegi kaddu yi nga xamni jipna jib ma laataa sama kaddu ñu ñëw fekk si ko nag ci bis bii nga xam kula ku la ci raw raw raw la ba faw muy koo xamante ni daa waaj bis bi wàccin woo xamante bi bis bi tàmbalee ba wax ni bi safar gi tàmbalee la tàmbali di defar ay xéewalam di ko jox jami yàlla yi di ko jox taalibe yi di yëngatu bu baax ban xam bisub Sëriñ Tuubaa bi mi ngi ñëw mu wàcc ko wàcc bu am solo woo Euh, taalibe yëpp bëgg nañ ci waaye wëllëre yeeg am di jàmm yi mbokk yeeg dëkkandoo yeeg yëpp bëgg nañ ci ñaanal ko yàlla suñ borom mi nga xam ni moo tax muy def tey jii nag instant bii ñu toll nii mu yoor yooru màggal gi secret bépp ci yoor yooru màggal gi la ne mën nañoo wax ni waxtu wii ñuy wax ak yéen nii moom mooy ki nga xamante ni yoor yooru màggal gi moom lañ ko àndal muy soxna ay de moom Serigne Saliou lii ngeen xool ci taabal ji nag muy ndékki yi nga xam ne bi màggal gi dooree ba léegi ni la koy defé kong ko njabot gi ak wëllër yi ak am di jàmm yi ñi nga xamni ñoy wa képar gi ñi ñoy njabotuk Serigne Saalihu gi wayé nag yeeg gilem yeeg xar yeeg ginar yeeg yépit mi ngi ci kër gi ñu fasséné sante Serigne Touba sante yalla suñu borom ndax bis bi Serigne bi kat dako woté sante yalla ci xéewal yi nga xamni mom la ko yalla defal waxal bopam nak ni képp ko xamni sama mbég sa mbég la bu bis bi ñëwatee nak ma ci sante la yalla soxna Ayda fi ñu la fekk tay ci ngiraneen ci sump gi. ana lan nga yëg ci bisub sëñ Tuubaa bi nga xam ne bam bam terew ba tey yaa ngi koy waaj ci sa façon ci sa yëg-yëg ci sa bëgg lu baax ci sa njàmbaar ci mën a dimbali doomu aadama yi mën a togg ay ñam di ko joxe te yàlla rek tax ak jëmmi sëñ Tuubaa ba ci bis bii nga xam ne nag bisub bernde la lan nga yëg tey jii fii nga taxaw ak lan ngay wax téléspectateurs yi nga xam ne ñoo jàkkaarloog yow ci màggal gi nga xam ne mooy màggalu sëriñ Tuubaa gi fii ñu fekk ci sa kër sant yàlla julli ci Seydunaa Muhammad sangu sang ñi di ñaanal sëriñ Muntaxaa yàlla na fi yàgg di ñaanal njabotuk Serigne Touba gépp sen seen phénomène wu doj waye di ñaanal sama sang ba Serigne yala yalla na yàlla yokk ay leram non lay duggé ñaanal laayeen yi tiijaan yi xaadir yi de Soxna Aida partout la soxnaay de ñepp ko bëgg soxnaay de ñepp ko fonk soxnaay de kër kilifa diiné yépp këru diiné yépp la bëgg euh, ñaax pour liggéey leen ak àndandoog ñom ci liggéey yalla suñu borom bi waye nak damay ñaanal sama ñaari wajuf di ñaanal nak sama mag ji nga xamni tey kër gi su ma fi dajalee ñaari nit bi ma fiy door mënuma fee indi deux mille cinq ba ma àndee doon tout tànk ba léegi di liggéeyal sëriñ Touba fii la sama màggal tàmbali ci sama bëgg sëñ Touba di ñëw Touba fii laa ko njëkk a dalee fii laa ko njëkk a màggal see ba tey fii mu toll fii ngeen ma fekk tey ah nga xam ne tey wàññeeku na depuis bi mu wàññeekoo léegi mu ngi bëgg a def ñetti màggal wala ñeenti màggal yoo xam ne fekkewu ko loolu la ñuy am ci màggal gi loo xam ne bu nu ci eggee day daw sunu yaram waaye ñu ànd ceeg ak cant ndax bi mu fi nekkatul it moom dafa amoon bëgg-bëgg ak pas-pas goo xam ne daf daan ànd ñun di taxaw ci mbedd mi di xëcc mbokku taalibe yi bëgg ñu berndewu bëgg ñu lekk bëgg ñu naan te bi ñu yàlla defee ñuy taalibe sëriñ saaliw yàlla may maa mën a may doole ji ak kàttan gi ak yërmande gi ak bëgg sëñ Touba gi nga xam ne bëgg naa ko sëriñ Touba ak sama deret ji ni ci sëriñ saaliw def kon ndokk ba mu fi bàyyee benn koo xam ne njabootu sëriñ Touba la bëgg sëriñ Touba la deret sëñ Touba la kon loolu ñun ak cant lañ ci am waaye nag ci biir cant gi soxna Aida rek mënul dara nit bari nay al copper lol bëgg liggéel seigne Touba te wéet ca waaye man bima dikké ci engagement wu liggéel seigne Touba sama sang bi dama dimbali katanal ma bolé mak ay jambar bolé mak ay soldar bolé mak ay ndonga bolé mak ay ay ay ñu bëgg seigne Touba euh, fimné bo dé xol tidiane khadr layen liggéey Touba bi ñëpp ci and ak man ci and gi ñu ci ànd ak man moy Cambérène la dëkk ndax man fima dëkk ci parcelle unité 3 frontière la ak Cambérène waaye Cambérène li ma dooleel ba ma am doole ji ba mën a taxawal lii ma taxawal ñu bàyyi ma seeni njaboot loolu nag dama koy sante Baye Abdoulaye caw ak njabootu Baye Abdoulaye gépp ndax bëgg leen nañ ma sëñ Touba ndax bëgg sëñ mu noon naa def soxna Aida fi mu nekkoon di fa nekk ab locataire la su ma nekkoon yëngal fa tamit sama yëngal daa bari bruit bu ñu ma woon da dakk tey ñu toxal ma damay ñàkk jataay boobu ndax ku sori wéet waaye soriwu ma wéetalun ma ndax ñoom ñoo ma gën a bëgg sëriñ Touba ndax boo duggee kër Baye Abdoulaye am na sëñ Mbacke laay am na maam Jaara laay am na lépp luy sëñ Touba am rek tuddee na ko ay njabootam kon jaxasoo googu ak Ibou Seynou laay Idda laay ñoom ñëpp Baye baa ba kii Baye Bas Bas mi yor jàmmalaay ñoo may yaatal dinkaat ma seen njaboot fi mu ne nag sunu liggéey bi mucc na ayib ndax ay ndaw rek laa dajale te moo ni woon baayam jox ma ndaw ñi ma def ca ñoom la nga defoon ca mag ña mag ñu nangu maa jox seen bopp joxaat ma seenu njaboot ñu ànd liggéeyal sëñ bi liggéey bi boo ko xoolee xool par rapport ak daaw xam ne réew mii réew mii sunu cër dañu koy xeex soxnaay da nag yërmande nga ci sëriñ Saliou ba jigéen ñi kenn dootu leen noot ci laa fas yéenee taxaw. borom màggal gii soxna Aida nga xam ne moo tax réew mii di rëg-rëgi mel nii mu mel muy sëñ Touba liggéey bii mu liggéeyal yàlla ak yonent bi nga xam ne àndut kenn moom rek àndoon. dégguñu fenn ci àddina wala ci histoire fu ko góor mas a jàppale wala kenn ku ko mas a jàppale ci biir liggéey bi kenn leen mas a dégg moom mu cité ko ci biir tukkib géej gi muy ndeyam soxna jaara wax ni saa bu nekkee ci ay xat-xat day jékki-jékki rek gis ku jàpp ci ay mbagam yëkkati ko na ko doxal dem ci sa ci sab liggéey bu gestoo muy soxna jaara kon li muy tegtale mooy valeur ki ko am mooy jigéen alxuraan ba mu dej boo fa duggee doo fa fekk saaru góor saaru jigéen nga fay fekk yaasin nga fay fekk wala maryaama kon li muy tegtale mooy jigéen yàlla da ko jox cir boo xamante ni bu xamee boppam rek day xam ne lu baax jigéen a ko war a moo ko war a baaxal bis bii mhm. ci la sëñ Touba génnoon mhm. fii ci Mbàkke Baari Jolof war a dem liggéeyal yàlla ak yonent bi mhm. nee bi mu déparé di dem sëñ ba numme Mbàkke sëñ ba numbe mbokkum sëñ Touba la bi señ bi wone ginaaw yéeg ci fasu di dem da sukk ci tank mam tierno Ibra Faty ndax mom la denk njabot gi muy señ Touba ne ko joxna la sama bop ba ke ci fasu di delsi mu bis bi bu ñewete kep ko xamni sama sa la nang ma santale yalla te ñun yaakar na ne suñu mbég mbégum señ Touba moy suñu mbég ma bëgg yeen ñi loolu mu waxoon ni ma ngi ni di dem mhm. waye sama delu ci nim ma leeree sax sama dem wu ma non mhm. seigne touba loolu la wax mhm. ma ngi dem mangi ngi ñew la wax damay dem rek togal len añ bo xamni ne bu ma ñëwee taajal leen ko muy ndap lo xamni ba yowmal xiyam du jeex loolu nak adina moko ko mo moo leeral loolu mbirum Sëñ nim ni mu du lu du lu logique du lo xamanteni xel mo koy xalat wala ngay comprendre wala ngay science dedet lu yalla def la ma bëgg yeen ñi fi ne yeen wa gi bis bii day bisu barke ma bëgg ngeen ñaanal ko moom mii ngeen ñaanal ko yéen ñëpp yàlla guddal fanam yàlla wéral cëram yàlla yokk ay xéewalam waaw yéen ñëpp ñaan leen ko ci bis bi bu ngeen ko ñaane yàlla def ko waaw laysa لنا كل من ليس يكون محسنا يا زمن نبتنا بأبدل الإيمان فلتنتهي الجميع بالأمان حفظنا به وباللسان

ma بجميع الأنبياء ورزقك بالتسليم واذكر قربيا نافع سلم وتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة العرش العظيم سمدي على النبي Rama القلب مدمنا مدى لكل محسن ومحسنا على كسارى بالدعاء مستحسنا وجيل أمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من مجيد يقول كل يكن يا من تكون warahmatullahi لم taala wabarakatuh. mbokki téléspectateurs yi jakarlu ñun di ñu seetaan ñoo ngi ak yeen ci bisu màggal gu mag gu tëdd gii nga xam ni mooy wooteeb sëriñ bi fii ci suñu kër waajur wu màgg wu tedd wi toog ñu dend ak moom muy sëriñ Idrissa Ndiaye Seyful Xadim moom maam Astawaalo Mbàkke mais ca nawel ngeen xam ni ay at a ngi nii yoo xam ni saa bu bisu màggal gi jotee ci waxtu wi dinañ toog fii àndandoo koog organe de presse yëpp dékk ko suñu micro mu fàttalinu jambar ju mag ju tedd ji nga xamni mo liggeel yalla ak yonent bi alayhi salam ba yalla fayé ko fay guri gu mag gi nga xamni at mu jot mayami di doliku fi ci rewmi ak bitim rewmi ak aduna gep ba ñepp tek ci seen beut mu di ñu fatali serign bobu digeentem ak yalla suñu borom digeentem ak yonent bi digeentem ak alquran digeentem ak talibe digeentem ak nasran moy yu bare bare bare yo xamni buñ ci jël buñ ko waxtane rek liggéeyub sëriñ bi feeñ ci te ngeen gis at mu jot lu baree bare bare dina jël dara euh, fàttali nu ko ci sëriñ bi ak liggéeyub sëriñ bi ak taxawaay waaye nag su jugee ci loolu tamit saa su nekkit daan na joxe benn message boo xam ni day jëm ci réew mi ndax xam ngeen ne am réew saa su ne fu mu toll rek day baax ñu mel ni moom macha allah ak seen xel yu rafet ak seen taxawaay ñuy lancé message boo xam ni day fàttali nit ñi ngir ñu gën a xam seen bopp ak fii ñuy teg seen tànk ak fii ñuy teg seen loxo. kon noo koy nuyu te di ko siyaare te di ko ñaanal nag mu yàgg fi lool te wér taxawaay bii mu am ci réew mii ñu nekk muy Sénégal am ko ci bitim réew am ko ci yoon wii du yoonu murit ñëpp gis nañ ko ñëpp teg nañ seen bët muy liggéeyal sëriñ bi waaye jaare ko ci waajuram bu baax woowu maam astawaalu Mbàkke jàll ba ci soxna jaara ku laal maam astawaalu laal soxna jaara laal sëriñ bi ci nuyoo bi euh, Cheikh mi nga xamante ni moo fi Serigne tubaa tey ñu ko ñaanal suñu boroom bàyyi ko xelam man loolu laa ko ñaanal saa su ne ko suñu borom bàyyi ko xelam su ko bàyyi xelam rek moom yéeneem rëy na rëy na ca démb lu jiitu tey kon suñu boroom bàyyi ko xelam te muccal ko te xàllal ko aw yoonam di ziar sama sang yi nga xam ne tey ñoo ne ci bi Touba gépp ñu njabootu Serigne bi jiital leen ci ak sama njabootu maam bi rek ñi nga xam ne ñooy samay waajur samay mbokk di ziar mboolem ëtt yi nga xamante ni Serigne Touba taaloon na fi taal muy ëtt Cheikh Borom Touba yëpp ah, ñoom ñëpp kenn ku ne maa ngi jottale ah, cant ak ah, ziar ci ñoom di ziar sama sang yu yu tedd yële di wàmbu soobi di leen ziar ñoom ñëpp di sàkku ci ñoom ñaan di leen ñaanal ci bisu màggal gi. waaw sëñ Moussa màggal gi de li nga xamante ni moom moo ko waral. moom ku ci dellusiwaat it xanaa dafa baax di baamu ndaxte baamu fàttali suñu borom moo ko njëkk a def alxuraan day baamu lu bari répétition suñu borom da koy def ngir matadik doomu aadama tax dégg maam ba saa su ne yàlla suñu borom bi day fàttali ni nga xamante ni tey jii mooy ni doomu aadama ab taxawaayam du ko wax benn yoon da koy wax di ko répété lu bari bari di ñëw ci alxuraan kon fàttali màggal gi tamit ba tey taarix boobu rek la ñuy toppaat mooy màggal. Euh, daanaka bànneex bi ñu ñëw ko dund waaye bànneex moom sëriñ bi am ko ci woon ndax jóge na ci géej gi ci tukkeem bu rëy boobu xam nga noonu ñu koy waxee ci fii ci Daaru Xuddoos ci jàkk ji nga xamante ni booba soobu na yoon woo xamante ni su borom tracé la ko te mënatu la wàññeeku mu yoon woo xamante ni azal jiitu na bu jiitu lu yàgg yàgg maanaam suuf seek li ko yàlla bind mu doonoon loo xam ni ab tomb la woon ci moom mu nekk koo xamante ni bi mu ñëwee. Euh, bokk na ci li mu daan def muy fatoom yooyu euh, ci ci jàkka ji tey ci Daaru Xudóos fi la gise woon mbooloo mu tedd moom di waa ahlu badrin euh, waxoon ni bi mu leen gisee moom la fàtte bépp cër bu mënantu doon bëggatul ci àddina lu bokk ci biir mbooloo moom kon sabab bi ñam ñamu sababoo ci ñoom rek seen dara yombul woon waaw ndax waa Badar moom su leen waxee ku tudd Badar tudd coono ku tudd Badar tudd maanaam loxo bu dagg tànk bu dagg tudd deret tudd faatu tudd dégg maanaam loolu yëpp suñ koy wax nag ci jamono bi day mel ni kon ay gént waaye ñi ko daan dund réalité la woon lu metti la woon ndax deret ju bari ju tuuru woon ci bis la moom bi mu leen gisee rek kon ñooña day mel ni sëñ bi dara am seddu maanaam ñooña la xemme moom bi mu leen xemmeme wax na ni euh, maqamaam bi nga xam ne ci la nekkoon moom xaadim rasul ak ndax boobu tuddugul xaadim rasul maqam bi mu nekkoon ak fi nga xamante ni tey fi la waa ahlu nekkoon wax na ni yonent bi mi nga ànd ak waa ahlu waaye diggante bi ak ñoom mu ngi leen di gis ñu ngi koy gis mi ngi leen di dégg ñu ngi wax ñu ngi jokkalante kàddu waaye sëriñ bi wax na ni booba day mel ni vitrine ak li mu ëmb ak ki nekk ci bitti vitrine bi waaw booba ñaari maqamee noonu la mel kon sëriñ bi booba euh, bokkagul fii maanaam euh, euh, ci mbooloo mi mu xemem loolu bi mu ko bëggee moo indi sallallahu alayhi ñu xamal ko ni ko euh, cër boobu de mi ngi fi cër yëpp jar na ba mu des boobu benn yu am na yu jar sax ba am kujje am na yoo xam ne jar na ba am na kujje ndax booba màqama yi day am baqee xam day boot day nekk dégg maam tey jii màqama boo xam day taxaw ñett togg ko wala ñeent danaan am nga dégg ñu ne diw ne diw ak diw ñu woote ndax da ngay xam ne tey jii xutbul euh, xaws muhid ibn arabi woote na ko Cheikh Ahmed Tijani woote na ko mm-hmm. ah, imam Bakili woote na ko te pourtant suñuy wax dañuy wax ne amul kenn ci ñoom koo xamante ni rek nit man naa weddi ni la kee wax amul ñoom ñëpp kon toggoonoon ci wenn fas wi bokk ko waaye ñu xamal ñu xamal la ñu xamal la sëriñ bi ni ko euh, moom maqaama mii nga xam ne moom la bëgg maam xëcc ko euh, di ci bëgg ñu ne ko maqaama moom de fastu naaru góor la xam kenn waragu ko waaw ñi ko doon jéem ñëpp bi ñu defaree teg gi ba teg gi rafet ba ñu war a yéeg biñ leen waxee li nga xam ne mooy maam mu fas wi fa mu jëm maanaam ñoom danoo daal di delluwaat àndaat ak yar àndaat ak teggin maanaam ne yonent bi yéene nañ la waaye nag dañ ko dul xejoo ndax ay nattu yaay diis mooy rëy kon loolu dëgg gi loolu mooy réalité bi li indi muy càppaacoli loolu dong la mooy tey jii bi mu déggee nag yonent bi saa sallam xamal ko ni ko man de ànd naa ci nattu bi nga yenn ko waaw ndax nag yaay comme ni ma ko waxee léegi yaay genn càppaacoli islam maanaam yow soo echegee rek islam échec na xam nga peuple sénégalais danoo xamul leen am danoo am loo xamante ni dara timm ko ci àddina ndaxte loolu yonante bi mën ngaa seet taarixul nit ñu baax ñëpp ñun jàng nañu téere yi liir nañ ko xam nañu dégg maam lu jiitu woon mag ñi et puis mag laa toppoon ndax ki ma toppoon xaadim rasul la toppoon mag ñi gis naa leen waaye nag doo dégg fenn foo toxale du ci ñiy dund ci àddina deen ay humain simple lu revenant yi du kenn ku lay wax ne la ci àddina mës naa gis du ci yonante du keneen ku mel ni moom moom dafa amul la ko waral mooy lii ma leen di wax fas woowu fasu naaru góor woo xam ni kenn mosu koo war la woon waaye yonent bi wax ko ni ko moom xemmem na bëgg na mu yéeg fas wii ndax nee na ko lii nga xam ne mooy yàqu fii ci islaam ni menn moom kese mooy ki nga xamante ni tey moo mën a sauver maanaam euh, euh, euh, loolu mu daal di soobu xam ngeen jomam juré ja xam ngeen jomam juré ji nga xam ni kenn du ko ci dab ci la jóg daal di sóobu maanaam jihaad woow nijaayam ju baax jooju nga xam ni Euh, fu nu toll dañ koy bëgg ñu di ko fàttaliku muy sëñ bu sóobe mu tedd mu baax moom ndax moom sëñ bi daa bon luwul kenn ñëpp la baax le yàllaa ko tànnal xam nga dafa wax ni euh, dafa wax ni soo seetee euh, dafa wax ni al tahiratul xasan bi ci tahiratul xasan bi tahiratul xasan bi al wax yonent bi saa sallam ko yow bi yàlla nomee maanaam nga doon koo xam ne mënoo yëm ma kenn ne su morom daa tànn lépp lépp dala ko tànnal lenn ne da def sélection ci biir xeet askan wi fi nga war a jaar maanaam même biir famille bi day seet ñi ci gën a baax ñoo lay meññ. waaw moom loolu da koo dal moom loolu da koo dal ndax soo tuddee maama maa sawalo tàmbaleel foofu rek day doy sëkk soo gestoo koy tudd sëñ bu soobee soo kan kër ngay tudd soxna jaar kon moom su borom ma ko taal jin bu xasanib jooju muy wax noonu al tahriru xasanib jooju moom su borom da ko defal nijaayam ju baax jooju ah, ci leen ko xamale ne ko moom de su fekkee ni yëg na ni maanaam duru nga nattu bii fas yéene yéeg fasu naaru góor wii moom xam na la ca làmboo te buggul lenn lu metti dal la te bis bu la dara laaloon moom am na ijaab jege na borom dina ñaan yàlla yàlla teg ko su ko regee mission bi di échec loolu yonentu ay salaam moo ko xamal sëñ Tuubaa borom Tuubaa nee na ma a ah, man ginnaaw ma am naa maqama kon naa ñaan moom ah, maanaam ah, loolu bañ a bañ a bañ a mën moo indi tey jii nijaayam fekkewul nattoom yooyu bi mu jógee bi sëriñ bi jógee foofu ci la sóobu yeneen bu rëy boobu nga xam ni il faut mu am nag ay sabab moo waral tey tubaab yi waral tey dégg maam sunu mbokk yooyu ñuy tooñ naan ñoom ñoom diw diw ak diw ñi nga xam ne ñooy famille yi nga xam ne ñoo jógoon boobu di ko jaxasee maanaam di di dox ci loolu muy sunu mbokk waa Louga yeeg ñeneen li ko indi woon mooy loolu il fallait am sabab day am sabab ni mu amee woon dégg maam ci yonent bi salaatu am ci mbooloom yonent yi jiitoon sabab bobu mo waral serigne bi manam jamar lok tuba bi mam ba exi fi mu egsi parce qu'il fallait yàlla mettre ko en épreuve ni mettre en épreuve ñeneen ñi ñi contemporain yi mu jamono ndax dajena fa ak ñoom Samori keneen ak keneen xam ngeen dajena na ñoom ci benn kii te ñoy ay jihad jihadiste la woon comme mom ño xamni dañ doon wote ngir islam la woon. mais mom da ko jaare ci côté pacifique mu nek ko xamanteni tay ji non violence da jëloon opté ko jël yenu yen bi mënoon koy yanu maanaam waale ko ñeneen ndax booba mbooloo gëm na ko nit ñi ñi ngi daanu ci moom dégg ngeen noonu ñu koy nettalee ci sëñ Moussa di wax ni sëñ Mamar Maane si teen tañoor moo ne ko korog wax jooju mu ko wax noonu xam nga ki am ci boobu jamono ba murit am na tey tey la ñuy wax nii tey la ñuy naatable murit yi waaye boobu murit am na ndaxte ki nga xamante ni da ngaa taxaw buur boo bokkut ak tey président la république président de la république tey mën naa jóg bëgg a bëgg a jël tey jalgati sey droit soo taxawee da ngay citoyen la ne yow avant tout day day premier citoyen bi nga xamanteni tay ji mom ci mbaxanam la rew mepp aju muy sunu kilifa ñun ñep ci walu dégg mam Zahir mais su lolu weesoo citoyen la day doon xamé tay ci jógoon bëgg a salfaañe say droit am nga droit taxaw manam xex ak mom ci lolu mais bobu lolu xewul won ci bour lolu xewul won bobu ci bour bobu lolu xewul ci ay bour booba loolu xewul woon booba ci ay buur booba buur yi ñooy am droit de vie et de mort ci ñëpp boobu loolu la woon boobu ku xës ba ne kii mooy buuru bërëb sàngam rek moom buur bi amul ku muy rendre compte rendre lu kenn compte moom li mu wax mooy am li mu bëgg mooy am li mu tracé mooy am kon mën naa rey fukki nit mbaa téeméer nit ci bis te rendre compte kenn ndax yoonu borom ndar ma nekk ca biir ndar moom yooyu ñëw ci ndax moo ko gën a jege ñi nga xam ne ñoo ko kon loolu moo xewal waaw imagine leen kooku bi mu taxawee maanaam ne dinaa leen tàggale ak laxasaay ngeen xool ni genn kuréel moo jóg di ay taalibe yu néewoon doole bokkoon ci biir citoyen yi nekkoon ci biir gox boobu tey teen dañoo taxaw sëñ Momar Mané jóg na ko loolu soo ko waxee waxoolu am ñoo lànk sëriñ bi leen àndal

mënoon na def li nga xam ne moom la ñeneen ñëpp defoon moo naa jóg booba lancé jihaad su jógoon booba woo mbooloo mi ko gëm na leen nan leen songu ragal naa ni ñeneen ñi mën nañu échec mais moom mën naa réussir waxuma ni tubaab bi nag du ñu mën ci moom dara waaye mën naa réussir parce que ëpp ñu koon mbooloo te ñaari mbooloo yu bokkul mbooloo mi nga xam ne baykat la su xeex jotee mu dem jihaad ki nga xam ni uude la su xeex jotee mu dem jihaat ki nga xam ni tëggu mbaar la wala tëggu wurus la su su su su jihaat jotee mu dem jihaat ndax ñooñu rek fi nekkoon yor seen jom di di ànd ak buur yi ànd ak nitu yàlla yi di jihaat ñooñu rek la woon ñoo fi nekkoon baykat yi nga xam ne ñoo daan jóg su mbay jotee ñu bay su bay jeexee suñu wootee ñu wér seeni seen i illéer jóg jihaat looloo fi amoon mais sëriñ bi dafa amoon ñooñu ba noppi moom am na équipe boobu ba noppi mais am leneen en dehors de cette équipe là mooy dafa am ñoo xam ne sont des fanatiques il faut nous comprendre fanatique ñoo xam tay kenn jundi lay wecc lay wecc ndax kenn ko loolu yonent bi amoon ci 313 wa ahlu badri motam tax mu gagné. Hmm. mooy ñoo xam ils sont prêts à mourir. euh dafa wax ni nitu wa ahlu badrin yoy nga xam ñom la xamee mom mom dem na ba wax ni itasanillahu bi koni waahidu min ahli badrin hafa min jaahidu dem na ba wax ni yalla duggal na ma ci biiru ahli badrin waaye def na may seen njiit kon tay li wa badar di reey reey cër ñun wa Sénégal kenn yalla jox. moo wax ni moom jiitu na waa ahli badrin ca yàlla jiitu na ni fa rasulillahi salatu wasalam te loolu waxam la itasani laahu bi kooni waahidun kenn laa ci biir waa ahli badrin xaafa min jaahidu kooku moo waxal boppam tamit daal ne rafaani ihdaamu xayra mursali rafan ba faxte bi kulla mursali maanaam liggéey bi ma liggéey rasulullah taala salaam ci bisam bu teddi wi ne ne jëlee naa ci diko liggeyel diko liggeyel ba bis manam samay makame yek rafani ihdamu ci liggey ma liggeyel xayra mursali ngeen gëkkul mu sonni rafan wa faqa ma faqa demna ba jituna timna mbolam naa yalla yonent yàlla mais loolu sont des dire il faut qu'on le dise loolu man je n'ai aucun complexe pour le dire ndax sama sëriñ sëñ touba la toppoon dafa ko daan wax kon kay sëñ Tuubaa daana ko wax kon ci etam na ko daa wax ndax man ki ma tarbiya sëñ touba ko tarbiya kon dana wax kon loolu mom ça change rien ci ciiru keneen ku manti doon waaye lii la ko yàlla cërale waaw ku mel non nak tay suñ ko amé mu am dimension bu tol ni nga xamni mom la am mu dil mom ci bopam manam di wax unicité pour rewam bëggul ñu départ bëggul réewam am en suspicion tey ji li xew assemblée nationale barki démb kilifa yépp ci war a addu loolooy dëkk lii dëgg mooy kilifa yi dañ cee war a addu mboolem les guides religieux de ce pays ñom ñep ils ont des responsabilités envers tay ji li xew barke dem ci assemblée nationale. moy tay ji suñu demee ba deug la loolu doon ñaan yalla am rew dem bay avancer démocratiquement kon suñu demee ba nga xamanteni ni nee ñom ñoñu tay fa nek ay ay ay ay ay cër. ñi groupe bi ak groupe bi sorewunu kon à n'importe quel moment mën naa valser loolu mo waram leena a ni kon il faut mu am entente ak ak lu pacifique pour que réew meuna avancer

ci giirug dundam ak askanam ba kor àddinay jeex ci loolu lay porté ndax boobu image d'autre fay kon loolu moy wara a may lancer un message euh, à la responsabilité de tout un chacun ñepp xamni manam dekk dëkk dafa wara bari ay parti ni ñi dañoo war di politique dañoo war tay di jaxasoo di dem ci terrain bi mais loolu jongante la boo xamante ni ko wara def ci biir respect def ko ci biir digg ma jam jàmm waaw am rew jam mako ko yor waaw ñoom ñëpp maa ngi leen di lancer loolu ba li ma gis tey barki dem assemblée nationale du image boo xam ni man de yaruma samay doom ci loolu te sama sama taalibe yii sama njabootu bopp yaruma leen ci loolu yar naa leen ci biir civisme boo xamante ci Serigne Touba la ko jëlee ndax Serigne Touba civisme bi gën ci civisme yi pacifique moom la indi non violence ci loolu la dox kon il faut ñu delluwaat ci njàngale Serigne bi ba ñëpp nga xamante kenn ku sama mbokki taalibe yëpp tey ci dëkk bi di leen ñaanal ci kenn ku ne ci jëf ji nga jëf ndax bis la boo xam ne xaw naa diis tamit ci biir euh, ndigal li borom joxe ci ginnaaw bi mu xemmee même mbooloo mu ahlu badrin boobu dugg seen biir ba dem ba yàlla may ko cër yooyu ba mu del suwaat wax ne na yóbbante bi gën ndax jaw fal faraalil waraa la wax dafa wax ni tey su doon jën laa leen doo indi baleen la dana su doon jënd balen la te village yu vingt personnes nga jox leen balen ñoo dinañ lekk ba suur waaw loolu la ñu sëñ Tuubaa defal noonu laa leen ko mën a misaal benn village boo xam ne vingt personnes ci nekk ndax humanité daal tuut ci kanam sëriñ bi yàlla ko bind mu nekk un être universel doon koo xam ni ay milliers de milliards la njëriñam mën a dimbali kon min humain yuy dund ci àddina rek daa ndaw ci biir njëriñu sëñ Tuubaa moo wax moo tax nga dégg saa solo mi wax man njëriñ kese laa léegi day mel ni village côtier boo xam ne vingt personnes fa nekk nga indi leen baleen jox leen ko ne leen ndawlu leen ragal naa nit ñi dinañ suur loolu lan defal ci tukkeem bu rëy bi euh, kon nag euh, indiwaat tamit euh, bëgg ñëpp yëngu ci tax mu ne bernde kon tegaat ñëpp kenn ku ne nga jiim ci bis bi mu néew mu bari kon nag mboolem ñi ci yëngu tey jéem ci def ci seen alal def ci seen dool def ci seen kàttan yàlla na leen seen bi tëb kàttan maanaam faj aajo yi maanaam maa ngi sàkku ñaan ci mbokku tali bi yëpp di ñaanal ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaw koy jërë ngeen jëf euh, mbokki taalibe yi mbokki téléspectateur télévision Touba TV ba tey nu ngi ànd ak yéen ginnaaw bi ñu jugee jànnatul maxwa foofu ci suñu waajur woowu sëñ sa Ndiaye xam nga ñu ngi nii ñëw ba Touba Taïf euh, fekk si fi nag suñu wëllëre suñu xarit euh, taalibe bi sëñ tuuba sëriñ Xaadim Diagne. moom sëriñ Mbacke Soxna nga xam ni yaakaar naa ni eh, yàgg ngeen a gis ci image yu télévision Touba TV ay taxawaayam ci bis bi nga xam ni mooy bisu màggalu Touba ak màggalu Daaru Xuddoos lu ci ne taxawaay bi nga xam ne moom lay am fii benn taxawaay lay doon ci wëllëre yeeg am di jàmm yi ak mbokki taalib dëkkandoo yi waaye nag di màggalal sëriñ bi bis bii nga xam ne sëriñ bee ko wooteel boppam wax ni képp koo xam ni sama mbég sa mbég la su ñëwatee nag ma ci sant la yàlla xeebuma ci ginaar yéemuma ci giléem kon sëriñ bi moo tudd ci ci gémmiñam bernde ci bis bi kon bis bi lu ñu ci mën a def bernde ci gën a nekk farata bernde nag la yàlla séddee njabootug Sëriñ Tuubaa gi muy toppatoo aw ñam ba mel na mu war a mel ñu joxe ko te duñ ci am xeej ak seen ñu toog ak Sëriñ Ahmadou Diop mii nga xam ni dafa bokk ci ñenn ñi war a yëkkati seen kàddu ci euh, taxawaay bi nga xam ne Sëriñ Xaadim am na ko ci màggal gi ak mbokk yi ak wóolare ak am di jàmm yi xam naa dañu koy dékk euh, micro bi rek laaj ko nan la gisee màggal gi euh, fii ci Touba Taïf sëñ Ahmadou. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu euh, kilifa gi di la nuyu bu baax di la sant di la gërëm di wax ni jërëjëfati jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba di wax di wax ni sëñ Xaadim amul morom.

pour ñu dem seen kër ñoom it pour teral gan yi kon moom teral gan bi muy teral gan bi muy def yemalewu ko si kër gi fii daf ko yemale si da ko eh, yemalewu ko fii si kër gi da ko da ko tas parce que boo ñëwoon fi tey suba fii rang bi boo ko gisoon fii dangay yaakaar ni fii moom euh, seeraas la wala dépôt kon loolu yàgg na si te ay xéewal yu dul jeex lay def di ko sante Serigne Touba. di ko mm, santale Serigne Touba kooku moom daal mën nañ ko témoin te te ay ati at ay at ay ati at moom lay def damay faral di wax ni fii kër gi ku fi ñëw ren déwén nii da ngay sawar a ñëw fi parce que fii moom service libre la bu ñu xëyee day am tànganaa comme ni ñu koy waxee day am day am ay forox caaya day am ay awsa day am ay boolak day am ay musu lépp lay am.

kon nii la mën a mel parce que taal bi sëñ sëñ Mbàkke Soxna loo nii rek la mën a mel te nag noonu la si noonu la si boolee tamit di def ay teraanga yu dul jeex dalay saraxu sax day génn di saraxu nit ñi pour ñëw mu lay jox paas pour ñëw di màggal si wala ngay dem mu jox mu jox la paas kon nit ko mel noonu su koy def damay damay faral di wax ni sëñ Xaadim moom kenn du ko ñaanal kenn ko ñaanal ay xéewal duñ koy ñaanal fan bu gudd parce que ay xéewal moom Sëriñ Tuubaa defal na ko ba noppi loolu moom daal Euh, gis nañ ko ci ci mom dal ci magal ki ngi leen di yeen wa Touba TV di leen siyaar siyaar ci weeru di wéru magal di ñaan lepp lu fi way ñaan yalla ko yalla nangu ñaanay mbokk talibé ñu ñëw ci jàmm delu si jàmm ak salam yalla mun nako yom nako yalla ko ko yalla defal ñepp di jaay Seydou Diol bu ko defé xam nga comme sëñ bi dafa won woon leen leen ma yalla gaay dañ ko sant leen nu ne. waye dafa am lo xamni borom xol bu reey donc ko mën te xalim xol dafa reey xalim sax am bay ñu xam té lañ ko xam mais ma ngi moom mañ ak légui ëpp na fanwera te fanwera ak boo ko dindee suñu at daanaka ñu des kër mbër kon démb la té di soga dik mais ni mu mel ni ni ni du tay démb la mom day innover bu ané bi bu défé li bu ané bi mu def li mom ci màggal bu ñëwee deful lén lu jéma neex ja mbok talibé rek mom bu sol mbu mu rafet du len mom la nit ñi teud ni nit ñi lek ni nit ñi nan ne nit ñi sang moom loolu rek moko ñor ci yag na ci lool yag na ci de xëy nit ñi dañ koy xam léegi mais nonu mom jukkom la ma ak mom nak euh, bañ xamanté ya yag lool kon bok li ma xam ci mom wala ko mëna xam ni li mom dëgg la ci mom lu yag la te lu yag dëgg la te euh, li gëna a jamono neexul te yalla du nit ku mëna liggéey sa alal ba nopi wo jaamu yalla di ko ci def rek kok borom xol bu yaatu dong moo ko waaye nag c'est normal yàlla moom ku mu dara fay juróo liggéeyloo xëy na dara ko fay moo tax mu liggéeyloo ko moom lépp lu mu ci am bi yéene rek yàlla ko ci yàlla may lu kawe ci njortam di jaay Seydou bu Diop sallallahu alayhi wa sallam euh, ngeen jëf euh, téléspectateurs yi ba tey ginnaaw bi ñu tàggoog sëñ Seexuna ci kàddu yu am solo yooyu mu yëkkati ñu ngi toog ak euh, soxna Ndeye Fary Mbuub mu baax mii moom it ngeen gis bu ngeen ko xoolee rek xam ni ñoom cofuñu màggal gi ndax it nag li sëriñ bi cité ci màggal gi muy bernde ku ne xam na ni loolu moom jigéen ñi ñoo koy def mooy nekk ci waañ wi euh, préparé ba xéewal yëpp tegu ci aw yoon ñu jox ko gan ñi jàppalee leen ko ci li nga xam ni mooy euh, màggal gi euh, ñu lay nuyu di la siyaare bu baax di la wax ni la danoo fekk si tey suñu wëllëre suñu xarit sëñ Xaadim Jaañ comme ni ñu koy defee ci mbooleem fi nga xam ni fi la ñuy jaar xool mbokki taalibe yi nga xam ni ci dëkk bi la ñu nekk waaye di dalal gan ñi di màggal màggal gi di defar seeni bernde ak seeni xéewal toppatoo gan ñi ba lépp tegu ci aw yoon ñu bëggoon rek nga indil ñu tuuti ay seere ci Sëñ Xaadim mi nga xam ni euh, moom ngeen fekk si tey euh, ci màggal gi nga xamante ni mooy màggaluk Sëriñ Tuubaa gi waaw maa ngi lay nuyu di la ziyaar di la delloo njukkal bu baax di ñaan yàlla yàlla nañ ko téewee diwin yu bare bare bare bare di ñaanal suñu khalifa général bu baax bi serigne muntaha basirou mbak yalla na fi yag lool ci wér yalla na fi yag lool serigne Abdou Aziz Abou Madiana suma yaakar tay ak ëlëg yalla na fi yag lool ci wér di ñaanal borom kër gi ñu fekk na muy serigne khadim Jaañ ndax euh, fi mu dëkk tubarkalla ba mu dëkk bobu dëkk fi yombul ren la fi am fukki at ak benn ñukoy koy ci ren macha allah mu def nak ay bernde bëgg ñëpp gën neegam mom ak soxnam su bax sañ fi fekk ci di soxna Binta Jong ak jigeenam bu bax bi di soxna Fat Mbacke ñas ñu bax lool bëgg gan ñi fonk gan ñi bo ñew ñu teg la ca kaw ak yir la ben rek a ñor nak Sëñ Tuubaa rek Xaadim Jaañ day nit ku bax ko xam bi rek ko ñor xolul gisul bëggul dara bañ nako bu ba ci neek fi lay fanaan ci ci ci ci mbedd mi fi lay tëdd ay nelawam sax da koy xawa kanal sëñ Tuubaa rek ko ñor ko sëñ Tuubaa mi yaakaar nag ba tax muy jël alalam di ko def ci moom di sant sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa rek tax jànkati xasaayid yi di ñëw mu yëkkati alalam di leen ko jox yàlla bu mu tàggoog dërëm sëñ Xaadim Jaañ yàlla na bokk ci milliardaire yi sëñ Bamba te yaakaar naa dina ci bokk ndax li muy def ni yombul yàlla na ko yàlla lafal cat akum ndog te oyofal ko te wéral ko waa juróom yi ko jiitu yàlla na leen sutu fanta di sa barke bi ci barke Cheikhul Khadim barke Serigne Mbacke Gaynde Fatma mi mu doyloo yi fi nekk ci taalibe yi di ko xéewloo loolu na ci mën a wax dégg naa dara manqué wul ci kër gi de. man de fii tey dama jaaxle ndax gis naa nag ba gis ton man daanaa màggal ba ñibbi sax duma fàttaliku ton am na mayga am na awsa am na forox caay def ci bool yi yi baa nga ne te euh, kër gee nga gis ñu collecturé ko lépp ay xar la te bokkut ak fi ginaar yi nekk ak ay nag macha allah gilim yaa ngi fa lépp nga fa fi daal dara manqué fi. ñu ngi fii nag tey ngeen seet si kër xaadim Diagne muy nit ku baax koo xam ni taalibe sëñ Mbàkke Soxna loo di nit ku baax koo xam ni sëñ Mbàkke Soxna loo rek la yaakaar àdduna ak àllaaxira nag mu ngi noonu muy nit ku baax nag bëgg ñu ñun waa kër Seydina Limaamu ba moo tax ñun chaque année moom la ñuy dalal ndax lu waa kër sëy Seydina Limaamu xew la mu nga fa ndax ñu mu ngi dëkk ak ñun fee ci Nord Foire ci Yoff ñu dendee muy appel muy lépp lu ñu xewle rek taxawaayam mu ñëw teewal murit yëpp taxawaayam rafet fa lool moo tax tey jii bu màggal Touba amee ñun duñu tal dara lu dul kër Xaadim Jaañ moom la ñuy wuy si ñun daal ñu ngi leen di sant di ko gërëm ci taxawaay bi mu ñu taxawoo tey dara manqué wu fi kër Xaadim Jaañ bernde yi li sëñ Touba waxoon rek ni kaay leen sant li ma yàlla Xaadim Jaañ def na ko ba mu mat sant na ba sant gi ëpp na jéggi na dayo dara manqué lépp lu sëñ Touba woote woon ci sant gi daal Xaadim Njaay rey na ko la sëñ Touba ne woon euh, kee rey na luy dox rey na luy naaw waaye moom it tey jii rey na luy dox rey na luy naaw lu ne def na ko daal macha allah ñu ngi koy sant di ko gërëm nag ñun waa Kër Seydina Limaamu nag amuñu fayam ñun waa Laayeen ñu ngi koy ñaanal yal na ko sëñ Bamba li mu sotti fii ci xéewal ak lépp li ñu teral balaa déwén yàlla na ko ko sëñ Bamba joxaat yàlla na bokk ci milliardaire u sëñ Bamba laysa yakunu musliman yaasa zaman asatafaran li siwaana kulla man laysa yakunu musliman yaasa zaman nafatana bi afdalil imaani فلتلتقي الجميع بالامان حفظنا به وباللسان فلتغسل والأنبياء والرسل منزل الكلام على النبي محمد والآل سل وسلم وسجد سؤالي للمنتقى